que 2008 damaa nekkoon sama digg activité di liggéey guddeeg bëccëg may liggéey ci noonu ci laa ame ndog liggéey ba wàcc di dem sama kër ma ne bala maa yegg sama kër dinaa jaar sama tool liggéey li may liggéey ba pare soog a dem nelawi comme damay liggéey guddi bi ma ñëwee bay dugg sama tool ci laa dajeeg benn waay mu ngi def ay rasta sol yére yu weex song ma di ma agressé may xeex ak moom ñu xeex fa xeex bu yàgg ndax daf ma ne dama lay rey hmm. ma ne ko yàlla mooy rey bu nekkee loolu la du ma daw te du ma wut yàlla moo mën a rey waaye duy doomu aadama mu song ma di xeex ak man ñuy dóorante di dóorante di dóorante ba ci yàgg mu jàpp sama loxo màtt gëmmu ci ma xëcc xëcc xëcc nanguwut a bàyyi ma continuer di dóorante ak xëcc sama loxo mënul bàyyi ba bëñ yi dugg après deret ji commencé génn taxul ma bàyyi ko ñu continuer di xeex xeex nañ fa pendant trente minutes wala quarante minutes kenn ñëwul kenn ñëwul parce que boobu sept de du matin nga wàcc war a dem sa tool boobu noonu ci filao yi doo gis kenn non sept heures du matin sept heures du matin waaw sept du matin parce que dama monté ji woon garde guddi ba wàcc nga fanaanee taxawaalu bu bët set nga wàcc war a attaqué xeex bu tol noonu ak loo am am kàttan mhm. sa kàttan day niiw waa ji ma jàppanteeg moom ñuy xeex ñu xeexee ba matt ma ba mat bi dem ba pertal ma yàlla def ay ñaari nit doon sport yem ci ñooñu ñoo tax waa ji bàyyi ma ndax ñooñu sax ñi mewuñu ko woon bi pour atte ñu bi leen waaj a xoolee dafa mel ni gaynte moo leen xool dañoo daw arrière. mooy xanaa daa ponkal daa doole wala. non ponkal la parce que toll na ni man waaw ëpp ma doole ñaari yoon daal mais ponkal la xam naa ne ponkal la parce que man boo instant boobu ponkal la ñi ma xam ñëpp xam nañ ne boobu ponkal laa mais terewul moom mu matt ma matt matt boobee nag sonal ma trop trop trop trop trop trop. lu nekk ma def ko ci jour bi mathématique mënul sedd. ma jël loolu la maté kii foofu. waaw da ko dàq ci nu ngeen def ba mu rëcc leen. waaau parce que bi matt matt bi tëë sedd dañoo dem wëri ko ci filao yi parce que bi ko ñii sport dàqee dafa daw dem ci diggante boobu bi ma demee sama kër pour waajal dem hôpital ñu ne hôpital yi tey dimanche duñu liggéey ma ñëw ci clinique mbay bi nekk. fini filmique c'est la piqûre aux tétanos dimanche. léegi boobu bi arrêté na mais comme que matt na ma rek naa def piqûre tétanos. matt matt gis nga gis nga fii la njëkk a sax matt amaat na it fi beneen matt ci ci ci mbagg mi bu foofu ba léegi mu ngi nekk góom mënagul wér. waa ñaari matt matt. léegi bi ma demee fikiru dimanche lundi mardi ma dem def passement ci clinique mbay mercredi jeudi vendredi ma waroon dem def na aw ma njëgu tike pour dem def passement ma tëbal vendredi boobu samedi dimanche lundi ja sama kër nit xajatu fa ak xet loxo bi néew yi ba toll ni bidon dix litres verte hmm. mënatuma ko mënatuñ ko dékku ci lañu ma yóbboo clinique amoo trois bi kër itam moo ngi fi clinique ñoom it bi ñu xoolee dañ ma yebal direct la daan teg direct la daan teg avant semaine bay mat bi ma matee avant semaine bay mat lundi ba ci dem la daan kon avant nga dem hôpital. waaw loxo bi nii bi na. nii bi na ba jaaxal ñëpp. ba jaaxal ñëpp jaaxal waaw yemu am bu muy génne. waaw kenn attanul. Hmm. waaw bu kenn attanul ca buntu kër ba mel ni sawaay kër gi am na lu fi lu garaaw lu kenn mënta nooyi. bi la bi la xet yi njëkkee feeñ loo yow bi bi nga njëkkee gis ne loxo bi am na xet. ñu ngi parce que xet boobu ma loxo bi xeeñ. waa ji ma doon màtt xet boobu moo ne ci yaramam man xet boobu ba léegi daf may xeeñ day jékki-jékki dégagé sama yaram bi génn man mu leer ma ne lii bokkul ci sama xet xet boobu moo desante ci man di ma sonnal guddeeg bëccëg du ma nelaw saa bu métti bi taree damay jóg topp tefes di dox di dox di dox muy guddi muy bëccëg di dox di dox di dox di dox ba xaw a dal dellu si waat toog kon agression daal mel ni su déggee yàgg na. yàgg na ban at la. la woon. waaw 2008 yaa ngi ba tey jii maa ngi am ay métit tàggoo ma si métit. léegi ñu ba pare bi bi ñu la transféré hôpital. bi ma transféré hôpital dama dem ñu ne ma dañ lay opérer da ngay dugg bolok mais deux heures du matin ngay dugg parce que yow ay doon dernier élément ma toog xaar deux heures bi deux heures bi waajal jot sama waa. kër sama yaay samay rak ñëpp yaakaar nañ ne damay dee yàlla baax na metit mun na sorek dee dara waaw may dund sama métit di ko muñ parce que boo amee rak yu jigéen kese ngay benn bu góor du lu la dal lépp ngay jooy parce que da nga leen di jaaxal da nga leen di sonal ngay muñ métit boobu di ko dund dem naa ba foofu ci hôpital bi sama yaay ak sama rak bi rek ñoo fay fanaan ak man ma tëdd fa ñetti weer opération bi ko waaw opération bi ñu def foofu la daan teg ma tëdd fa ñetti weer ñetti weer yooyu ma fa tëdd dem naa ba mënatuma fay hôpital mënatuma am lu ma jënd ay ordonnance yi ñu may bindal ci noonu ci la loxo bi laajee greffe loxo bi laajee greffe aw ma ko yoruma ko aw ma ku ma dimbali gisuma ku ma dimbali jooyu ma ko fen nag dama ko muñ rek di ko di ko mettitlu wax dëgg fa yàlla ci noonu ci la ma docteur bi bindal ko it ne ma da ngay dem principal bañ fa jógee war a dem principal mënuñu am lu ñu yóbbu principal mais ñetti weer ñu tëdd présenté waaw amoon ay ordonnance yoo xam ne waruñ jënd nangoon nag nga doon def pour fay yooyu yooyu noonu dama doon yónnee ci biti ñu may def ñuy sàkku ay ndimbal am na seen wax dëgg yàlla ñoo xamante ne bii dimbali nañ ma bu baax a baax a dimbali nañ ma ba seen doole fa mu yem wala ba ñu noppee yëg ma leen di laaj ndimbal la taxaw mais ku ma ci laajoon da may jox man nag maa dem ba rusatee laaj maa dem ba rusatee laaj ndax wax dëgg yàlla du lépp lañuy laaj am na loolu da ngay muñ bàyyi kaw yàlla buur bi waaw loolu moo tax bi ma génnee foofu demuma direct principal damaa dellu si waat sama kër toogaat toogaat fa toogaat naa fa at at deux mille huit ba deux hmm. may soog a dem principal bi ma demee ñoom ci la ñu defar seen réforme pour li nga xamante ne bii moom ma war a faj lépp ñu def ko ci kayit bi koo xamante ne bii téeméer def lay të ñu bindal la trois cent et quelques mil ordonnance kooku mooy kan yow mënuñu la faj parce que lii boo ko amul ñu la faj te loolu amuma ko ma dellu si waat toog jàpp ci yàlla di muñ sama métit boobu ba léegi benn masoor moo ma fi gisoon ne ma ñëwal sama clinique ma dimbali la te yàlla tax mooy masoor Baba Jaw moom jàmm gën la yoroon clinique yàlla wonale maa ngi moom nii rek mu gis ma yërëm ma jël ma en charge ti ma faj di ma faj di ma faj di ma faj ba affaire bi jaaxal ko moom moo may jàllale hôpital bu Pikine moom moo ma envoyé ma dem Pikine ci Diop Diop bi ma demee moomit mu def ay consultation bindalaat ma kayit ma war a dem CTO EASO. man daanaka yow dem lu mat juróomi naa ci lu mat juróom district sanitaire. waaw dem ci clinique. dem ci clinique dem dem hôpital. dem hôpital demaat hôpital demaat beneen clinique. soo ko ñëwaat hôpital bu bu bu bu Pikine. Mhm. bi ma jegee bu Pikine moom it daf ma bindal benn analyse boobu ci laa mujj a demee nag ci hôpital mooy bi ma demee woon IASO. parce man man man kañ nga mujjee dem hôpital. kañ laa mujjee dem hôpital. Mhm. deux deux 2011. 2011 laa gëjee dem hôpital. ba tey jii ba tey jii nii 2020 bii nii dugaatuma hôpital ngir faju parce que même poste de santé amoo tefes bi dem naa fa di faju mais dañoo dem ba ñoom garab yi ñu yor wóoluwuñu koo faje sama loxo parce que saa bi ëpp na leen doole léegi man garab yi nga xam ne man maa ko war a jënd. di ko fajoo aw ma xaalis bu ma ko jëndee. léegi su ma déglu si li nga romb léegi nii comme li jëm ci facture proforma bi Robert Dantec defar. ñu mhm. ngi toll ci trois cent soixante six mille. Mhm. cent soixante six mille francs. Mhm. bi mu amee pare. bi ñu bañ lee loolu. dañ la ko bindee da nga xam ne amoo ci pexe nga génn. wala da ngaa tëdd ci hôpital jéem a lijjanti xaalis bi. déedéet tëdduma ci hôpital ba. ndax jotaguñu ma woon jël. Ah, waaw man maa demoon rek pour xool lan laa koy jëlee. def fa ay passement rendez-vous ay passement def naa fa sax lu war a mat weer ay passement di dem di defi passement bi ma demee ba passement yooyu noonu war a jeex ci la soog bind kayit bi jox ma bi ñu bindee kayit bi jox ma ma xool xam ne lii aw ma ko mënuma ko am te chaque jour ngay dem di def defi passement ta passement bi saa booy dem taxi ngay mën a jël te taxi bi lu gàtt gàtt di ko fay trois mille aller trois mille retour muy six mille francs nga war a jënd tike ca bunt ba dagg ticket deux mille cinq cent war a dem ca kalay passement nga daggaat fa tike ba ma xoolee loolu mënatuma am paas yooyu ak dagg ticket yooyu ma arrêté dem ba kon daan na mat li nga naan sa saa saa boo woon dem maintenant ma na woon mat daana jege ñaari junni waa daana jeg ñaari junni ñaari junni yi su ma ko yóbbuwaawee ca sew laa ciy delloo dem naa ba loolu mënatuma ko am ma toog dematuma principal léegi ci laa ñaane docteur bi nekk principal pour na ma bindal kayit bu nga xam ne mun naa di yem poste de santé amoo tefes ñu di ma defal ay passement parce que mënatumay paas di dem di ñëw mu bindal ma benn fooy ne ma naa yem foofu poste de santé amoo tefes ma ñëw di passement foofu ñooñu it wax dëgg yàlla dimbali nañ ma ndax fayeku ñu ma passement bi su ma ñëwee médecin nañ ma passement gratuit mais samay ordonnance man maa koy jënd foofu it loolu moo tax ma bàyyi ko parce que dem naa ba mënatuma am bagage yi nga xamante ne bii ñoom laay passement loxo bi parce que da ngay soxla cinq paquet complexe ñaari bande vergo bande bu nekk six cent lay jar paquet compresse bu nekk mille cent franc parce que booy xool cinq mille yi day jeex chaque deux jours nga war ko def da dem ba dooto am loolu waaw da ngay amatoo loolu léegi nag xajatuma si biir nit ñi parce que fu ma toll loxo bi moo ngi xeeñ. ah ba léegi jamono googu yëpp loxo baa ngi wéy di xeeñ. loxo baa ngi wéy di xeeñ di di di néew yi di génne dangaat di génne tooke ba léegi loxo bi mu ngi génne. ba nii may wax ak yow nii tey dama war a faju mais man maa jëlal sama risque bopp su ma amee sama paquet compresse jënd sama banda gaz tekki ko nettoyé ba salte yëpp dañ ma tegaat compresse laxasaat parce que mënuma ko solaale ak yére te dem naa ba mënatuma ñàkk liggéey ndax fokk may liggéey ndax may am lu may jënde ay bande ak ay compresse parce que mënoo di ko laaj di wër di dem te ñi nga xam ne ñoo di say mbokk yàlla mayu leen doole jooju pour ñu mën ko di def ci yow def nañu nag ba sonn waaye mënuñu continuer li des nag moo tax ma jëngu ko nii nekk ci àll bi jàpp sama morsa njàmbur su ma gisee ko bay su ma jaayee su ma joxee ma gàddu dem yóbbu ci marché bi xool ku ma ko jaay su ma ci amee deux cent denc su ma amee trois cent denc kon mën nañu jamono ji yow. Mhm. ko sa kër. déedéet génn naa sama kër depuis 2011 2012 2012 laa génn sama parce que kër gi ma dëkkoon locataire la dem naa bu amatuma lu ma fay nekk amul benn locataire bu ñu lay nangu loolu ay at nga dëkk këram doo fay amatuma lu ma jëlee nekk ma dikk ci àll bi defar sama mbaar bu ndaw toog fi jàpp yàlla wet gi ñu la agressé woon. waaw fa nga mujjee ñëw dëkk si. falaa mujjee ñëw dëkk si falaa ñëw dëkk si parce que àll bi yëpp dagg nañu ko tool mais tool bi nga xam ne moo jàkkaarloog fi ñu ma agressé woon kese borom tool boobu moo ma nangoo xajal ma defar mbaar toolam pour mën faa dund waaw daal laa dunde sama métit boobu ba léegi. bi ma jógee waaw. ba tey jii Maodo benn hôpital. ba tey damaa yaay toog. waaw yaay yaay jéem a faj sa bopp. waaw sa ñaari fan. waaw nga jënd sa bande jënd say compresse. waaw daal di daal di faj sa bopp. waaw léegi boo fajee sa bopp pare léegi. Mhm. loxo bi xet dina am. waaw mi ngi wéy di am. waaw néew bi rees na wala reesul. bon néew bi rees na xat bi mu doon am mu ngi wéy di am mais ci boo toogaatee ba suba sa maanaam passement bi su fanaanee lay commencé waat di couler. mais ci bees bees bi da ngay am jàmm métit bi day xaw a dal am jàmm mën a benn trente minutes wala nelaw ko yeewu. léegi nooy boole ngay boole métit métit loxo gi nii liggéey comme da ngay liggéey. bon métti na mais boo liggéeyut métit boobu day gën a yokku ndax di nga war a faju doo faju léegi nga war a dindi lu bon li tegu ci kaw dindi woo ko. nga koy bàyyi muy gën a continuer day gën a infecté loxo da koy gën a yokk léegi nag par deux heures yi may def sax waru ko jël mais aw ma ci taxay ndax foog ma def mais su ma sañan par jour bu nekk dinaa ko tekki nettoyé ko defaat bande defaat compresse mais li la wax compresse ak bande xaalis lay jaar aw ma ko gisuma ku ma ko jox foog man naxat donc donc li ñuy liggéey li ngay dund. ci laay dund ci laay faju est-ce que yaa ngi ci prévoir pour mën a est-ce que yaa ngi bëgg wëyal sa traitement maanaam ci li ngay liggéey. <laughs> boo kenn jàppale boo la kenn jàppale est-ce que yaa ngi pexe boo xamante ni <laughs> soit da ngay dem gis hôpital yi <laughs> comme ni nga gisee ki nekk bi nekk yëmbal boobu nga wax. ñi la jàppale est yaa ngi wër ñi ne ñoo xamante ni. par nañ pour jël la en charge. def ci lu ñu ci pour pour loolu am saa. waaw maanaam pexe yooyu moo waral. tey suñu jataay bi man ak yow ndax tëbuñu tëb rek nii rek mbëkkante rek wala nga tëb tëb nii rek ñëw man maa def ay effort pour nga jàppale ma ci yow soo ma ci ëppee ay pexe parce que man li ma la wax ku tàmbali 2008 ba léegi di defi say pexe bu jagoon amaana yow boo may xam dangay fekk mu wér su fekkee lu war a mais comme yàlla dogal na boobu ba léegi wérul léegi dañuy dañuy dañ da bëgg a jébbal lenge yow nga dox ci sa jéego loo ñu si man a jàppale wala koo ñu mën a booleel mu mën ñoo jàppale mu jàppale ñu ngir yàlla loolu daal la ñu amal ci liñ la ciy soxla. bu ñu xoolee. waaw léegi dañuy dellu si kii di nga soxla li nga yor. Mhm. gis nañu yor nga kii du bari. Mhm. facture proforma bi trois cent quelques mille yi mu nekk noonu. Mhm. bu ñu doon xayma. bu ñu doon boo boo waroon xayma li nga xam ni. moom nga yittewoo. pour faju mm-hmm. mooy sa opération am mm-hmm. ñu defal la greffe bi mm-hmm. defal la say ba nga mën a wér dir sa kër boo ko doon xayma a toll bon kooku nag du ma la nëbbu du neex a xayma parce que bu fekkan ne ca bees bees ba ñu bindee ordonnance bi la ñu gisee peut-être kon dinañ ko mën a xayma mais comme booba ak léegi yàgg na te hôpital xam nga ne loo gën a yàgg boo defee ak seeni changement parce que la doon faj ba muy bees mënut laa faj bu màggatee kooku boo dul docteur doo mun a xam wax dëgg fa yàlla foog ñu demaat hôpital ba xamaat yan condition lañ ñuy mun a faje mais bu ci bëggee basé wu ci trois cent et quelques millions mun nañoo juum mun nañoo gis tey am sëñ Matar Thiam mu jox ñu ko ñu daal dem hôpital ñu ne ñu lii booba la ko mënoon faj mënatu ko woon faj léegi dañuy day mettiwaat en tout cas daal dañuy sàkku ndimbal ko lu ci waay man daal ci dimbali ñu pour ñu faju kon li nga bëgg la jàppale. waaw ci nga faju. waaw ba sa loxo bi uh-huh. nga mën a continuer sa activité. Uh-huh. duggaat ci nit ñi. duggaat ci nit ñi. mën nañu ko mën a ñëw fii est ce que bi mu lay dal na nga am soxna. ma soxna. si soxna si dem nañu di. waaw amoon ngeen njaboot. déedéet jotuñu woon am njaboot moom bi affaire rek dafa dafa dafa jékki rek. waaw xam ne toog boobu mënatul muñ. mënatul muñ mu dem yoonam parce que dama ko takk ñu am six mois lii daal ma bi mu toogee ba mu mat at wéruma gisul yaakaarul ne dinaa wér après ci la takk ay bagaasam ñibbi ñu toog jàpp si yàlla xam ne yàlla jeexul daal. fii yor yaa bon am na ñuy liggéey mais dañuy xëy liggéey bu ngoonee ñu dem ñibbi waaw. mu ngoon jotee yow rek yaay si. man rek maa fi def. ñu ñëw ñu xëy dañu ñëw. liggéey. bi journée ñu dem ñibbi ñëpp ñibbi. waaw ñu bàyyi nga ñu ñibbi yow loo sant doo tiit bi ñibbi. Ah, kay dinaa tiit dinaa jaaxle <laughs> ne waaye la ma la ca début ba rek. Hmm. yàlla moo yor bakkanu doomu aadama waaw su yàlla newul dinaa fi dee amaana du ma fi dee man daal maa ngi métit di sàkk ku ci dimbali ak ku mu munti doon taamu ma nag ma sàmba taamu ma ma demba du ma it parce que koo tudd mën na ne lu tax mu taamu ma en tout cas daal maa ngi noon daal ci seeni loxo yen waa réew mi surtout yéen ñi nga xam ne nag yéen a dagg seeni ite ñëw dox ba egsi ci man pour dimbali ma te yàlla tax maa ngi leen di jébbal kàddu gi